yasaay aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh sadri wa yassir amri waxlul uxdatan min lisaani yafqahu qawli xasbunallah wa nimal wakilu tawakkaltu ala la la hawla wala quwwata illa billahi al azim xalifa rappeur la ke lamiñu askan wi alors di nuyu sénégalais yëpp yu seetaan leen nuyu yéen seen buzz alors di nuyu sama manager sama doom nday Mass Wade bismillahi rahmaani rahim ok alors vraiment comme sénégalais li ñuy dégg ci weer bi nii di mois de la femme si nakar yi nga xamante ni ñu ngi koy teg suñuy jigéen yi muy mineur yi ak mag yeex ñëpp vraiment choqué nañu comme sénégalais yëpp quoi. Diop Isaac. billaay wallaay wa talaay waroon sax sant Diop ndax man sama yaay Diop la sant sama sëriñ Diop la sant man sax dama am gàcce ay waay yaa bon yaa ñàkk jom yaa yées yaay saay saay. ndax sa moroom yëpp yi nga xamante ne ni yow nañ men di ko def di laaxatu am jabar am ay doom sa doom bu jigéen nga xam ni xëy na sax moom moom mag xale bi nga téye di nax di ko tëddee ba biiral ko mais nga biiral ko xaa nga jël sax ses responsabilités mais doon ngaaxa ak ñàkk xam-xam moo tax nga naan yàqal biir bi wala nga naan ay noono di daw ses responsabilités billaay wallaay watalaay kii moo bonte yées ay waay kii moo bon te mooy saay-saay dafa yomb ku yom dina dem di jëla xale bu jigéen appartement di téye xale yu jigéen yi di tëddee ba réputation am yàqu ba xale yu jigéen yi di ko piège muy futteeku ay waay yaa bon ay waay lii moo ñaaw yàq nga deru sénégalais yi waroon sant Diop te vraiment kii nii mooy lu ma la xam nga charia dafa war rey parce que charia ku njaaloo te amul soxna ok mun nañ la dóor téeméeri yat mais ku nga xamante ni am na soxna di njaaloo dañu war a gas kaam ba mu xóot dugal la si di la kaña ba nga sedd te lu ma gën a metti ay lan ay isek warul jàngale voilà kii kii la lay jàngal xale yi kii la lay jàngal xale yi noo leen di njaalowee la leen di jàngala ak noo di naxee xale yi jël jën jëla leen appartement jënd leen ay iPhone di leen nax billaay wallaay watalaay ki ñii ay poson ay poson poson bu mel poson si société bi boo ko déggee rek si genre yi lay tàmbalee mineur nga jël ko. premier gàcce lu nga xamante nii nit ku normal du ko xalaat waaw parce que gars yi tamit man dama ragal ni wéruñu quoi noonu la demee parce que yow ni ngay nooy jëlee nooy jëlee doomu jàmbur am sa doom làq ko sa kër jël doomu jàmbur di ko jël appartement la moo tax yóbbu ko si këram te doomam ak xale bu jigéen bi nekk ay morom ba xamante nekk ay xarit. am yoo xam dafa ñaaw ñooñu baaxuñu ci askan bi ay sama wax ñooñu xoola lu ci mel ni coronavirus sax xëy moo leen di tane parce que coronavirus bu jàppee doomu aadama da koy rey nu mu gën a gaawee te ñoom dañuy yàq société bi parce que booy boobu noonu day leer ne àddunaam yàqu na te day leer ne bu su génnee ci problème bi même bu amee doom ak après affaire bi ni muy répercuté bay répercuté ci carrière doomam doomam Abiba est-ce que ay dégg yooyu noonu yëpp saa loolu xoola loolu day yàq askan bi loolu. te moom si boppam bëri na si moroom xëy na moom moo tojalee rek feeñ ay xale yu jigéen yoo xamante ne may la sumwaay 15 ans xam nañ luy sulu dafa ñaaw si ay dëgg na gaay gore te yàlla tax na yàlla na gaay gore si taat sulu sulu la marka markanjaay la plaisir plaisir la mënul weesu plaisir te ngeen gore yàlla tax boo leen amee soxna ngeen yem seen soxna bu fekkante ne da ngeen bëgg am mineur wala dara charia islaam terewu ko ngeen dem ngeen def farata ngeen tax ñu may leen te ngeen bàyyi njaaloo njaaloo moo yàq Sénégal te moo tardal Sénégal gars yi ñu ngi njaaloo fu ne muy si présidence ministère yeex direction générale yi fépp may la sumuwaay ñi nga xam ne ñoo jiite suñu réew ñoom ñoo gën a doy waar ñëpp ak si ñi nga xamante ni nii ñooy jël koom-koomu réew mi yëpp lu askan war a dundee sàcc ko di voyager dem si yeneen dëkk di fa iri xale yu jigéen yi xam nañ leen bu baax xam nañ bu baax lépp nu mu demee seen bopp ngeen di nax lekk waaye seen bés dina ñëw noonu la demee dëgg rek mujj. mais ñun na xoola lijjantiwuñu leen te faalewuñu leen dañuy wax dëgg te yàlla tax boo leen amee seen procureur wala ngeen am seen jaay doole ak lu leen munti doon suñ fa ñëwaatee wax fa xoolal li nga fa waxaatoon amul lu ñu siy ragal ndax dëgg moo neex yàlla noonu la demee waaw alors yoon nax na def liggéeyam waaw si waa ji yoon na def liggéeyam te bu ñu kenn sonal di génn naan ay day défendre Diop Isaac xaw ma nan ku génn di ko défendre sax ma la sum waaye xoola nañ dal sa kaw parce que xoola dëgguwoo te doo waxkatu dëgg te naa feq nga noonu la demee xalifa rappeur la ek làmmiñu askan wi ah askan bi yëpp na xoola soge nañ am nañ lu ñu metti te ñaaw noonu la demee dafa ñaaw lu salte xam xam ne lii saa musul am Sénégal gis nañ fi lu ne gis nañ fi lu ne waaye pétrole bi moom saa waay ak bii nii moom saa waay mooy laas man de si lépp lu ma jot a gis man pétrole bi suñuy quatre cent mille parce que nu lëmb fu ñu munti dem bu ñuy dem di bëggee sax di la woyal naan suñu quatre cent mille nga ni dung pungalu maamu jëmm xasbunallahu wa ni'mal wakiilu man gàcce yi man dama yaakaar ni sax ma la sumuwaay non dafa ñaaw dafa ñaaw te doy waar nit normal ma la sum waay man dama koy xalaat sama bopp man su doon man par exemple xëy na damay jég saay rek dee gàcce rey ma mais ñu ay nit sax xasuma laaw ni mal wakiilu yàlla ñu yàlla musal si ñii quoi alors vraiment yoon na def liggéeyam waaw genre yi nii da leen war a sax rey bu ne bu doon dëkk bu normal da nga leen di rey noonu la demee mais yoon daal ñu ngi koy xaar te wóolu nañ suñu justice. xale yu jigéen yi tamit saa xoola nañ goree te ngeen am seen dignité ngeen raw ngeen xoola ngeen roy seen yaay yi seen yaay bi ñu nekkee saa waay xoolal li nga nekkee nii seen yaay bi nga ko doon def xëy na sax doo leen juddoo est ce dégg noonu la demee carrière jigéen dafa gaaw maximum trente cinq ans jeexal nga te yàlla tax dara jaru ko fi waa ay iPhone yi dafa ko jar ay xaalis xaalis lu mu bëri même bu dee ay million sax lewul fot fot mu jeex. noonu la demee quoi yéen aw ma benn problème si yéen mais xale yu jigéen yi xam ne ñoom ñooy dëngal teguñu ko si yoon gars di leen nax. comme kuy nax xale bu ndaw ak tàngal loolu moo ma naxari te loolu du yoon est-ce que alors jigéen mooy askan jigéen bu baaxee rek mooy askan bi baax na. voilà na jigéen yëpp booloo ne bàyyi nañ def lu ñaaw dootuñu njaalooti ak benn góor nga xool ay wàllu yu kese nañuy jur dam leen ngeen sëy te yàlla tax ngeen def ni seen yaay ngeen muñ même bu fekkee xoola cent francs nga leen di jox dépense par jour sax ngeen muñ yàlla na leen fay loolu ngeen am si njaboot gu barkeel voilà wala ngeen dem ba seen jëkkër àdduna bi xoola ñëpp di ko dégg fu ne fi yàlla rek a fi nekk gëm leen yàlla te yàlla tax ngeen bàyyi mooy bàyyi leen njaaloo njaaloo baaxul day yàq réew sobe si bëri na Sénégal lancer pétition loolu noonu maa ngi koy ñaan ay organisme wala ay mouvement na ñëpp xeex émission bi nga xamante ne nii moom mooy seen petit gàlle parce que baaxul si Sénégal baaxul si société bi seen petit gaale ñu ko initier saawaay xoola ba léegi nii musoo gis ñu jël seen doom wala seen jarbaat wala ku nekk seen famille ñu boole ko si waaye sénégalais yi nañ yeewu te maante yàlla tax est-ce que dégg duñ si mës dugal seen doom dañ siy dugal ñoo xamante ay doomu baadoo la nañ ngay dugg si village yi fin fond du Sénégal yi nga xam ni seen parent yi dañ sonn ñu jël seen doom yi di leen nax indi leen seen petit gaale di leen tëddee wala même bu ñu leen tëddeewul sax saa waay xoola booy bu ñu màggee gis nañ fi benn booy bi xam nga booy dañuy yàqu. noonu la demee loolu saa waay xoola seen petit gàllé saa munul am benn njëriñ ci Sénégal munul jëriñ société bi noonu la demee loolu day yàq société bi ñuy liggéey ci ndiggu xale yi liggéey si ay millions ba pare xale yi ñëw xoola seen esprit dañuy ñuy détourné carrément ñu foog ni affaire bi ay affaire de star la wala affaire yooyu noonu non non ba affaire bi du ay affaire de star da ngeen am tur rek moo tax sénégalais yëpp àndandoo xoola xeex seen petit gàllé ONG Jamra ñu ngi leen di encourager seen liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def pour Sénégal essai dégg mais ONG Jamra boobu noonu si boppam ñun sénégalais bi ñu koy doog a xam si Latif la woon te Latif député la woon ñoom instant bu ñu amul député nañu xeex xoola am député xoola dem assemblée national ku rey nit na nga la rey waa jooju noonu rey xale bu jigéen bi si Thiès ñi violé ñoo ñëpp da nga leen war a rey essai dégg te bàyyi naa la wax benn affaire de gars gis nga saa waay loi boobu noonu tant que changé guñ ko ku rey ñu rey la mun naa la may xoola fii ak dix ans chaque mois di nga ko dégg chaque mois di nga dégg rey nañ femme bi rey nañ femme bi mais arrièreal nga xool benn un si ginnaaw ñaata femme nañ fi rey noonu la demee te yàlla tax député yi tàccu xiiroo ngaayoo saagante te yàlla tax ñun askan bi saa xoola dafa leen dafa loo ñu dara voilà góorgóorlu leen ngeen am jom te yàlla tax ngeen xool intérêt Sénégal ngeen xeex si loi yi nga xamante nii pour intérêt askan bi la yaa ngi dégg voilà loolu mooy mbir bi quoi alors vraiment message bi loolu la woon quoi di wax ni ñun sénégalais yi vraiment scandale bii nii soge nañu te naqari nañu ñax trop.